Sandrine ak militant yi mooy non Bana Sandrine moom c'est une autre histoire c'est maître Leyti maître Koita, Macky Sall Souleymane Dede mhm. Sandrine suñu benn xarit la woon bu fi ñëwoon vacances mhm. boobu étudiant la ñu woon euh, bi mu ñëwee suñu benn cousin bu tudd Louis Ndiaye qui est ingénieur de génie civil mhm. nekk ci benn entreprise bu tudd Soyeco tey euh, mon moo ko fi yebaloon euh, parce que beaucoup bokkoon Lyon Sandrine est de Lyon son père était le directeur de cabinet du ministre Daniel Kabou, à l'époque. Mais, la crise de 62 à mai, papa delluwaat France Papa dafa bokk ci xeetu nit ñooñu nga de ne dañu ingénieur de génie civil de Tambalé, Il gi expert comptable mujj gi mu bëgg médecine D'abord ji ne ko ça suffit d'autres jàng médecine donc mu installé comme expert comptable à Lyon il a il a un cabinet qui a pignon sur rue à Lyon alors Sandrine est à Lyon nekkoon université Lyon xamanteeg papa Louis parce que papa et papa Louis tonton Ibou Ndiaye le petit papa et Sandrine ñoo bokkoon classe INSA bu Lyon donc ñu xamante mu yebal Sandrine mu ñëw fii vacances alors Sandrine Sandrine ñëwee euh, ñun man ak Leyti ñu ngi dëkkoon 46H pavillon H Macky Sall de 43H ak Ben xaritam nous ko yàlla yërëm Dembo Sall alors mais comme on était quatre copains euh, Sandrine nous di benn jigéen euh, mënuñu ko draguer ñun ñëpp bon nous ne léegi Euh, kenn ci ñun bu mu bu mu ko jéem a euh, dragué nañ ko bàyyi tranquille nañ nekk ay xaritam ay frère am euh, di ko gunge ci lépp lu muy def donc ñu respecté deal boobu boobu Sandrine Sandrine séjour séjour am jeex fu jëm nag ñooy ànd mais kenn du avancer benn pa waaw ñooy ndékkindoo ñooy añandoo ñooy reerandoo te ñooy tëddandoo te buñ tëddee it kenn du génn néeg bi <laughs> kon affaire yi leer kenn bañ a wax sa morom. kenn warul sa borom <laughs> kenn warul sa borom président Macky Sall sax eh, ubbi parce que ndegam loolu mënoon na eh, eh, xaaral ma ubbi buntu bi dem dem ci toilette yi ak yooyu mais buñ tëddee rek kenn du génn néeg bi <laughs> waaw donc ñooy àndandoo ñooy tëddandoo <laughs> donc et jusqu'à aujourd'hui on a gardé ces relations là avec Sandrine qui a des filles yoo xam ne sa âge la ñu am de grandes filles hein, qui ont fait l'université benn bés ma dem naa ba Lyon euh, yendu ak parents Sandrine ak jëkkëru Sandrine ñom ñëpp ma woo téléphone passe Sandrine Sandrine est restée notre amie euh, donc euh, elle est devenue une mère de famille hein. donc elle est en France et yakarna né jours séjour nous ñu defoon ensemble ci le président Macky Sall Nous na ci li gëna suñu relation après parce que depuis lors on ne s'est pas quitté voilà même bi mu même bi mu génnee PDS sax vous êtes pas même bi mu génnee PDS on ne s'est pas quitté parce que daan nañu wax te man daan naa jël initiative dem këram pour waxtaan ak moom mu dellu si waat PDS et ça yu ma demee këram rendre na compte président Abdoulaye Wade mhm. voilà. d'accord ñu bàyyi la nga tàggatoo. di am mbégte ak contenté ci invitation bi ngeen ma defal euh, ma di la ci gërëm di ci gërëm euh, Aliou Ndiaye Boubacar Samb euh, di ci ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre seen euh, chaîne de télévision di leen ñaanal yàlla euh, chaîne de télévision bi nekk comme TFM comme 2S euh, comme télévision Bougane Gueye comme yeneen télévision yi nga xam ne ak la 7 TV yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci bouquet bi wala ñu ngi ci espace audiovisuel bi donc loolu laa leen di ñaanal parce que Aliou Ndiaye a les compétences fait partie des meilleurs journalistes du Sénégal euh, euh, wane euh, na bopam ci fimu jaar Wal mo xam mo xam RFM kon nak momit. Jotna, mu am ay pour que télévision bi nek une télévision bo xam da dafay dox